tey de dañoo ñëw takk morso yu xonq commerçant yëpp génn ngir li ko waral mooy bëgg ñu ubbil ñu suñu chantier bi. marché bi dafa lakk en 2017 boobaak tey bu ñu ko calculé parce que day fay jege juróom-benni at léegi nag may laaj ay nit lakk le nga yóbbu leen foo nga leen di defaraatal seeni i place tabaxoo marché bu bees su fekkoon da ngaa tabax marché bu bees sax nga ne nañ ko xaar wala nga teg am yooyu teg mais dañu tabaxal marché boo xam ne ña lakkle woon la ñuy tabaxalaat seen ay place ñooña tey bu ngeen xoolee yéen a gis seen bopp ña nga ca naaj wa ñenn ñu amatuñ dara tëdd seen kër am na ñoo xam ne faatu nañ buñu dee joxe place yi seen doom lañ ko jox wala seen jabar am na ñoo xam ne ña nga tëdd seen kër ABC ñooñu ba bu ñu joxee place ko jël loolu lépp ay problème yoo xam ne moom lañu jànkoonteel waaye tey mel ne ñun dafa mel ne ñun kenn kenn yërëmuñu kenn faalewuñu te dox te dox nañ ba sonn ku ñu war a dem dem nañ ci yow waxtaan ci njëkk ak teraanga ñu dem ba tey jii rek dañoo sonn ñu bëgg a taaw nag jàkkaarloo ak ñu wan ne leen nag dafa doy fii la ñu mën a yem négocier nañ wax nañ ba sonn luñ ñu wax tey bu subaa loola dañ barki de mondial ministre du commerce ñëw na fi si Abdou Karim bi muy ñëw dañ ko recevoir ñun ñëpp recevoir ko ak mbégte jàpp na bu ñëwee kat ñun solu suñu problème jeex na waaye bi muy dem bi mu demee déception la ñu bàyyil bi mu demee déception la ñu bàyyil ndax li ñu bàyyi déception mooy ñëw ñi nga fekk daanaka nga xaw leen daanaka jàppewoo leen sax ay doomu aadama fi toog nga ñëw traité leen nam leen neexee wax la leen neex dem seen yoon dama bëgg mu xam ne nag ñun dañ ñoo yar ñu doon ay taalibe war moo waral bi mu ñëwee lu mu mën a wax ñëpp dañoo muñ mu jeex mais dañoo bëgg wax tey ne dafa doy tey jii àllarba tey jii àllarba tey jii ci lañ yam ji tey tey la mercredi fa tey ñu def nañ point de presse dañoo fas yéene mercredi prochain ñu fas yéene defaat leneen bu gën a pire lii ñu def ndax mënatuñ ko fas yéene tuñoo dem ci kenn nag naan ko lii wala laa wala yu mel noonu ndax li ñu bëgg mooy nañ ubbil suñu marché ñi moomoon marché bi ña ngi ca biti boo demee tey rii am benn rii boo mën a jaar nit ñaa ngay tawte ca mbedd ma naaj waa ngi seen kaw lépp mi ngi seen kaw ñu am ay problème équipement promosem dañ ne léegi da ngeen signé yeen waa ak contrat ak waa promosem ñu soo leen ubbil marché su ngeen ko signé kenn du ko ubbi te ñu jàpp ne nag marché bi comme ba ñu koy tabaxal moom booba Alioune Sarr ministre moo fi nekkoon ministre du commerce moo def fausse pierre bi àgg ba ba àgg naa ne jàpp a wax président de sant ko nag bu baax ko seedeel bi moo ñu ko tabaxal ba mel ni ñu bëgg ñun moo tabaxal marché ba mel ni bëgg waaye nag tamit dañu bëgg wax ne président jàpp naa ne li ñuy sant leen ko ndax président fu toll mi ngi daw ngir satisfaire sénégalais kon jàpp naa ne ñoom ñi fi nekk tam dañu ko war a jàppale loolu te du suñu rek président ne leen dem leen ngeen jege askan wi jàppale leen kon nag ñoom bu ñu ñëwee dañu war a jàppale mais waru ñëw duñu chantage à partir de mercredi prochain nag danañu déggaat ci leneen fas yéeneetuñ mukk bàyyi mu seet liñ bëgg nañu ubbil suñu marché bi nit ñëpp bokk liggéey jigéen ñi sonn nañ jigéen ñaa ngi toog sonn nañ ñaata place ngeen gis yoo xam ne seen bopp dañu ko takk ñëwatuñ marché jaaratuñ fi ku chargé boo amee demee weer ñaari weer dama bëgg nag ñu yërëm ñu te jox ñu cër moom bi mooy gérer marché bi ñun commerçant bi ñu lu ñu wax soo ko waxee waruñu nag su ko signé du bi loolu moo jaadu dama yaakaar ku fekk ay nit ñoo respecté loolu wax loolu nag bi dara desu ci nañ ñu jox sunu marché dara desu ci xam moom dafa teg condition daf ne le premier fii ak le premier su fekkente ne yéen signé ngeen ko dañ ko bi suñu ko du ngeen signé duñ ko mooy loolu rek mooy li ma wax ne jox ñu cër marché bi nañ ñu ko bi dañ wax ñu soog ko wax ndax loolu yëpp mën naa dawee nit ñi nit ñi dañoo sonn non non même a gérer nañu jox marché bi président Macky Sall moo defar marché bi mais darañ ko ci sant waaye kenn du ko ci gërëm ndax lii suñu devoir la suñu droit la marché Ndoumbé Diop ñun dañoo bokk ci population bi dëkk Njaareem di fay suñuy taxe bañ juddoo ba léegi suñuy papa di ko fay bu marché bi lakkee c'est très normal mu fay ko fay mu defal ñu ko suñ président yi suñ président yi chantage bi ñuy chantage lañ war a ba parce que marché bi mënoo koo defar ba pare di ñu di ñu sonal ci ay promosem ak lan mooy promosem bëgg ñoo jàppee ay innocent yoo xamante ne bi ñoo ne da nga fiy installé benn kuréel boo xamante ne bi buñ nekkoon ci place bi sax kii borom place bi bëgg koo jaayaat amul droit jaay ko loolu est-ce que vous vous trouver ça normal loolu normalut kon actuellement nii fii ñu tollu li ñuy dolli actuellement fii ñu toll li ñuy dolli mooy ci état bu xeex lañ ne ñii fi nekk li ñuy teg dootuñ ko nangu. danañ ubbi marché bi de gré ou de force parce que marché bi mooy suñu gagne-pain marché bi mooy suñu gagne-pain benn condition lañ ñu mënta tegal tey la mercredi mercredi prochain. bu ñu biwul marché bi ñun dinañ ko tijjil suñ bopp nañ tëj nañ jël commerçant yëpp tëj leen waaye dinañ tijji marché bi. ñun nag tey li ñu wax problème mu marché Ndoumbé Diop moo ñu fi indi ndax marché Ndoumbé Diop 1963 lañ ko yore seen kër yi président Macky Sall nag dafa ñëwoon jaaree wax ak ñoom ñu voteel ko mu xam ne voteel nañu ko mu ñëw defaral ñu marché bi dañ ko ciy sant ko ci gërëm waaye li ci des mooy marché ba am 5 ans kenn tëjjiwu ko nit ñi sonn dee tey nañu ubbi marché bi nit ñi liggéey bu ñu ko ubbiwul nag njaareem gépp ak li wër njaareem gépp dinañ gërëm ville morte la ñuy def dañuy négocier ak ñoom mbooloo nag mooy doole te marché bépp ànd nañ nekk mbooloo dañoo bëgg ñu semaine suñ ko mën waa njaare ville morte la def ndax ñamoon nañ ko fi ca jamono Abdoulaye Wade mi ngi ñawaan ne dañ ko tëjal suñu bopp dinañ xeex te lu ñu am jol ndax xale yu yi dee nañ borom kër yi sonn nañ jigéen ñi sonn nañ kon nag ñoo leen gën tëjal ni marché bi sonn nañ dee nañ tàyyi nañ waaye li ñu bëgg a xamle daal mooy sonn nañu marché bi deux mille euh, euh, dix-sept la la ñu ne ñu dans six mois dana pare booba ba léegi ñu ngi ci juróom-ñetti juróom-benni at parewut marché bi noppi na mais gouverneur moo ko téye ak préfet yaa ngi dégg ñoo ko téye na bu fekk signé wuñu promotion bi duñ ko ubbi lool jaaduwut waruñu noo defaral ba pare dinu chantage dinu teg lu nu lu nu d'accordul promotion àndagun ci war na téye marché bu ubbi nan ubbi marché ba pare ñu door a commencé waxtaan andi nañ ko ca conseil ba ñu rejeté ko yaa faatu toog kon bu nu ñëwee nu ñëwee gouverneur bëgg na force bu ngeen ko signé wut maanaam marché bi du ubbi loolu jaaduwut ñun nag sonn nanu comme li ñu wax rek moom la ñuy wax àllarba bi fekk àllarba bii di ko ubbiwul ñun dana jël suñu engagement boobu ubbi ko parce xeex jot na ndax gouverneur